ñoo koy fajal seen bopp fi may jeexalee foofu lay daaneele bàyyi suma naataangooy ñëw wutuma ci barab bi dama bëgg ñu xam dara te loolu dama koy bàyyi loo xel ñëpp ñii toog ci table ji tey ak ñi fi toogut foofu taxul ñu toog fii tey ngir wax ak sénégalais yi du ñu ay luubalkat fii kenn amu fi dossier ndax ñoom xoqatal la ñu nekk fi mu ne ñi am dossier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 kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi def contrôle de l' de l' exécutif te dematoo te dematoo assemblée nationale. kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne wóolu leen wóolu leen seeni doom le 17 novembre dinañ campagne campagne bu am solo bu saf sàpp jël majorité bi jox ko l'opposition ngir mu mën a. contrôler l'action de l'exécutif tey bés bi ñuy def suñu bés bi dafa am solo ndax Ghana dëkk bu am solo la tey tey jii Ghana jël na majorité bi jox ko opposition ci assemblée nationale.